ak ci formation yi pense que de plus en plus am na euh, yàgg nañoo noté que dañu am déficit ci ay spécialités yu bari yoo xamante ne même hôpitaux yi ñu tabax dangay ñëw fekk service yoo xamante ne amul parce que spécialité amuñ ci bëri na tamit médecin yoo xam ne bëgguñu génn Dakar parce que xëy na bu nekkee sax dañu établir dans le privé fii moo leen di gën bu nekkee tamit dañu leen di affecté peu de médecins acceptent d'aller euh, surtout avec une certaine spécialité ci fi gën a sori gàcce ngàllaama nag on gis nañ ci ay nit ñoo xam te ne ils ont fait l'option d'aller dans les dans les endroits les plus reculés pour exercer là te ils ont ce mérite là donc côté boobu gouvernement bi dina mu ngi taxaw ci ñaar d'abord sur le plan de la formation gën a permettre plus de spécialités gën leen gunge ci ñuy def spécialisation bi ensuite fexe tamit que infrastructure euh, hospitalière bi mën a présente partout avec le niveau de prestation boo xamante ne day tax nit du soxla une prestation qui doit être ordinaire daw ay kilomètres kilomètres kilomètres pour ñëw Dakar pour mën ko am loolu moo taxoon bi mu ñëwee ma fekk ay contrat yu bëri dans le domaine de la santé j'avais dit nañu taxaw ñu taxaw parce que ressources yi ñu bëgg a engagé mën am mën nañ ci am ñaar ñaari hôpitaux wala hôpitaux yi nga xamante ne am amuñu yenn services yi ñu tabax ko fa donc rationalisation boobu ak carte sanitaire bi gouvernement bi ngi ci def ay jéego yu bari par rapport à l'implantation yenn hôpitaux yi pour que ñi nekk ci polarité boobu yëpp ñu mën leen référencer ci hôpital boo xam ne am na toutes les toutes les spécialités qu'il faut et le plateau technique qu'il faut sur le plateau technique aussi les hôpitaux les offres yu ñuy am day ànd le plateau technique mais nous veillons juste à ce que les facturations yu ñuy def que ça corresponde au prix du marché parce que comme yenn saa nga gis ci boo xamante ne mën na génne hôpitalu lëm ci lu ñuy surfacturé donc il faut rationaliser l'utilisation des ressources diversifier euh, le maillage pour fi nga xamante ne amul ñu ana am des des yenn centres ay hôpitaux de référence ensuite former le personnel ak les spécialité pour que foofu noonu matériel boobu ñu installé euh, mu am des spécialité spécialistes yoo xamante ne mën nañu ko mën nañu def les les prestations prestations qu'il faut Donc ça reste un défi. Des choses ont été faites, d'autres ont été moins bien faites. suñu responsabilité mooy gën a sori ci li nga xamante ne lu baax la ñu jotoon ko fi def